asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum yéen ñuy dañu suivre ci Dakar ci TV tey ji nag ñu fas yéene yi football fas yéene waxtaanee équipe bi nga xam ne.

deug lan mo nek ci mbir mi waye itam bu dee mën nañ ci jëlé ay solution ñu jëlé ci itam ay solution kon nak dañuy daal di euh, rek doore waxtaan bi ak kenn ci ñi nga xamné ñoy joueuru GFC yi di capitaine équipe bi yakarna euh, Bamba ma lay nuyu di la dalal euh, di la jox ak kàddu gi nga ñew deug deug ci mbir mi nu mu wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep quoi mhm. ni wa Dakar aftu mhm. vraiment xam nga di nuyu sama gaay yi nga xamanteni aussi bon ñoo and ñëw fi ni xam nga ñi nga xamante aussi tamit présent wuñu te xam ne bon xeyna peut-être fi nek mo sori parce que ñoo xamantene ñi ngi bo Richard Toll ñii ñi ngi Casamance. Mhm. mun ñu def déplacement bi mais ñoo leen fi nekkal quoi. Mhm. xam nga je peux citer des exemples comme Bilal affaire Bilal Bilal Bilal Fall.

début bi mu doon fay normal bi ñu demee ba si euh, suñu match dernier match face aller contre Renaissance. Mhm. lañu ñu gën fay. Mhm. comprendre est-ce que mën nga citer tour bu dé euh, mën nga mako permettre. waaw Pape Thialis Faye. Mhm. mooy le président du club Pape le président du club. xam nga depuis contre Renaissance la ñu fay amee ñu arrière salaire xam nga mu def 4 mois ak ay prime de match yo xamanteni ni fayuñu ko comprendre nga ñun ci lepp njëkk ak teraanga mosuñu taxaw di. di di di di di semer la bordel wala affaire yooyu. Mhm. parce que dom doomu gor lañ ay jullit lañu. mais biñ bir ba tok biir baga toog affaire yi bëgg a ëpp loxo ñu def euh, groupe whatsapp waxtaan ñun suñu bir parce que dafa amoon ñaar ben groupe boo xamante dirigeant yi ñëpp dañ ci mhm. ñu dem ba si euh, bir, ñu ne ñun lépp lu ñu waxtaanee rek day am fuite ñu concerté wu def ben groupe whatsapp boo xamante ñun rek la. si mhm. bir lo ñu toog war esat daje stade Amadou Barry pour dénoncé ko parce que waxtaan nañ ba gisee ak presse beeg yooyu bañ wara a ñëw par la suite mom mu am écho bobu nonu mu woñu ñu bureau mhm. bi mu ñu woowee bureau bu na dégg naa li ngeen bëgg def affaire yoy noonu mais su ngeen ko défé da ngeen ni salir sama nom par rapport ak man bobu ngeen doon njëkk waxtaan ak mom ci ci problème bi ba ba ngeen commencé am arrière est-ce que ndëkkon ngeen toog laataa ngeen di yegg fofu waaw loolu yëpp biñ bi bi bi bi affaire yi amé peut-être nit ku nekk rek dang koy dang koy jappé kàddoom. Mhm. ñun kàddoom rek lañ ko jappé à chaque fois. day yebal nit muy directeur sportif bi mu ñëw na dinaa leen fay dinaa leen fay si loolu rek lañ mën a basé wu. parce que donc leen doon def ay promesses. voilà ay promesses mais il que ni dafa dafa dem ba ëpp loxo bëri que 4 mois. Mhm. tabaski korité du dara loo xamante nii ñun suñuy yaak suñuy ñi nga xamante ni dañ yaakaar suñu muy suñuy waajur toog di xaar li nga xamante ne amaana mooy suñu ñax ñaanuñu ko kenn. à chaque fois bu ñu demee ba si biir rek day am échec parce que nit ki si boppam moo ñuy promettre que ni tabaski korité dinaa leen fay ba si fay korité biñ ne suba la korité à 17 mhm. la wax ne dinaa leen fay. bu ñëw leen biro a 17h man jël naa sama téléphone 17 h di ko woo mu fay téléphone boobu lañ ko gëj a jot. mbokk yi ba léegi euh, ñu ngi ci dossier bi nga xamné mo dox diganté dirigeant Guédiawaye football club ak ñenn ci joueur yi euh, comme nuñ ko défé won dal di déglu joueur yi ñu jox ñu sen version euh, tay ji ki di le président du club Pape Thialis Faye mom tam nangul nañu woñu fi ci ay bureau fi ci Point e, pour itam addu ci mbir mi wax ñu dëgg-dëgg nan la mbir mi demee way itam wax ñu itam lan mo ci position am donc ñu fas yéene dugg ci biir xol mom Pape Thialis Faye nga xamné moy président club bobu di Guédiawaye FC deug deug nan la gisee mbir mi ak ban position la ci am. voilà comme nuñ leen ko promettre woon démb gis ngeen euh, jotaay bi ñu am ak ñenn ci joueur Guédiawaye football club ñu ñëw euh, foofee ca Dakar Actu daal di ñu wax un peu moo nekkoon euh, situation bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni moom la ñuy dund foofu ca Guédiawaye football club wax nañu mbirum arriéré de salaire ak arriéré de prime wax nañu itam jafe-jafe yu ñu am ak seen président de club bi di Pape caalis Faye donc tey jii nag moom mi nga xam ne mooy Pape Thialis Faye may nañu li nga xam ne moom lañ ko doon ñaan manam mu may ñu ñu talal ko suñu micro mom itam mu addu ci mbir mi wax deug deug nan la yëf yi demee ak mom ban taxaway la ci am donc euh, monsieur fay ñu lay jaajëfal ci recevoir bi ñu recevoir fi euh, di la nuyu di la jox kàddu gi nga nuyu ak mbokk internet yi. ko amul contentieux bu am mon ak ñom donc saison la won saison bi jeexna aujourd'hui dañuy entamer benen saison bu bees maintenant staff technique bu nek en place ñu may décider bañ groupe lañu bëgg a liggéeyal maintenant groupe bi nga xam ne moom des moom liggéeyal moom la ñuy maintenir ñeneen ñi des so ñoom pour ñoom soxlawuñ leen donc on va voir ak ñoom ñañ ñoo xam ne déjà ñi nga en contrat ak club bi on va en négociation pour rompre le contrat ak ñoom ñeneen ñi nga xam ne seen contrat jeex na wala pare la war aussi dans le contrat bu ñu amoon ak ñoom amoon na benn ben point bu déterminant ci ñun moy le problème de l'indice de performance et que parmi ñom amna ñu ci bëri ño xamné indice de performance bi rempliruñ ko. manam lolu boñu ko don fram fàcceel moy lan deug deug ci contrat bi. performance moy nga jël jour parce que Sénégal tay jii jour yi jëg lañ jël di lañ fay mais il faut nga am fo lañ di mëna naté pour que xam nak ñom am un rendement pour club bi wala rendement pour club parce que boo jëlee benn joueur boo toute une saison saison vous mënul compétir mënul bokk ci match te feebarul dara jotu ko jàpp bu am un club ko Il a pas amul rendement ci club am performance donc ko prévoir pour soxla pour parce que ñoom ay joueurs professionnels lañu donc indice de performance boobu ñun si la ñuy si parce que chaque un mois ou deux mois dañuy xool par rapport au groupe bu ñu am ñu évaluer leen donc évaluation mooy joxe tey ji bu saison bi jeexee ñoo xam ni kii war nañ ko téye wala kii waruñu ko téye donc ci groupe boobu ñu bëri tey seen indice de performance ñi benn match lañ def sur championnat bo xam sur 26 journées sur huit mois nga def ben match. amuñu blessure amuñu dara. amuñu blessure feebaruñ defuñ dara ça pose problème ou bien ñoo xam mosuñu fubal yaana mi ngi ni am na té mo suñu football, ci si benn match nga leen fay salaire donc koku tu ne comptes pas les les les les maintenir pour l'année prochaine. biñ demee ba concerté wu war ko mëna na tok dañuy dem gis presse bi wax ak ñoom stade Amadou Bari si lañu wo ñu dem bureau tok ak mom wax ak mom mhm. mu ne bu ngeen defee li da ngeen di salir sama nom parce que mom ay nawlé comprendre il se trouve que dama jël équipe bi si ay loxo comme Jamil Faye donc du yoon man sama tour di génn si yoo xamante nii mooy loolu kon moom nangul na leen amal na leen ne arrière bien sûr ba mu toog ne may leen ma di fin du mois dinaa leen fay fin du mois boobu mu wax dinaa leen fay grand si leen ko gëj a dégg ba fi may wax ak yow nii tey. bu ñu ñëwee ci contrat bi sànq génnee nga ay document wan ñu ne yéen amalu leen ñaar dërëm boo xam ne war ngeen ko jox yooyu les joueurs euh, donc euh, trois mois wala quatre mois derrière derrière yooyu ñuy laaj fan la jóge réellement bu dee am na euh, lan moo tax ñoom ñu taxaw ni jàpp ne da nga leen yeral trois mois. waaw mais loolu ñoom ñoo koy wax xam nga aussi jàpp na ni xëy na ñoom yoruñu këyit mais ñu yor nañ këyit on a une comptabilité parce que société bi football bi professionnel la comme société boo xam dañ koy gérer am comptabilité booy tenir quotidiennement journalièrement comptabilité donc nous on des papiers sur écrit comme que nous avons nous soit par chèque ou bien par espèce déchargé donc nous avons avec pièces d'identité aussi nous euh, aussi dans notre plan comptable aussi on a tout dans le système comptable, on a aussi tout. Donc je pense que nous, on a les preuves pour montrer aux gens qu'on les a payés parce que nous, nous avons Mais nous, ci ci wax dem nañ sax ba jot nañu que yow waxtaan ak yow ba nga ni amal nga la may nga fay euh, contrat mais bu problème ami mais da ngay hmm. parce que bo n'ango wax ak mom rek day lenen ñi dañuy nit mën nga ko ameel di mois de salaire am nooy wax ak moom ci njëkk ak teraanga sax yaramam daw mu baal la. ne la garaaw léegi mu ngi wax ni euh, peut-être que moom même si ay promesse la leen defal. quand même jot na leen recevoir. non dëgg la ngeen ngeen waxtaan est-ce que tam may ngeen ko benn délai boobu pour mu mën a peut-être wàccoog yéen. waaw délai yi avant délai yi ci mois de Ramadan bi la woon avant avant avant avant Korité joxe na délai Korité bi jotuñu xaalis. Mhm. gaay waxat mu joxe wat délai avant tabaski joxewul tabaski bi waaye ñew promesse joxewul tabaski bi jeex promesse joxewul amna ay cas spécifique yo xam ben ou ñaara yo xam ne ñooñu peut-être fubal nañ saison ba mu jeex wala ils ont fait presque moitié championnat wala def nañ championnat bi yëpp mu jeex ñooyu sa indi performance baxna ñoy war na mën a mais aussi mën nga leen téye si bu fekkee ni condition yi ñu fi nekké parce que comportement aussi la donc c'est mauvais esprit peut déstabiliser groupe mauvais esprit parce que nous sommes dans un monde professionnel où les gens doivent être professionnels professionnel c'est quoi c'est d'abord signer contrat un contrat copie contrat jox un règlement intérieur la la charte club donc da nga un vous club mais yow boko jangul jàngul joxoo ku ko jàngal tamit do meuna xam lu xew. ci xayma euh, buñ doon wax tay ñaata joueur ño nek ci situation bi ngeen nek ni ci xayma ñaata lay do parce que gis ne yéen a fi ñew mais peut-être amna euh, ño len fi ñewal ño len fi tewal tay mais ñaata joueur exactement ño nek ci situation bi. waaw exact booy xool surtout fois bu équipe bi do effectif bi bu nekké 30 jours. Hmm. wala 35 cinq jours. mun naa la woon ne cinq jours ngay génne yoo xamante ni bokkuñu ci problème bi mais toutes les 30 sont concernées.

je ko concerné Bamba Ahmed Bamba Bamba Bamba Sar. te li may wax football Sénégal la nekk maa ci mujjee ñëw mais je sais que li wax nii président boo mu club bu mu jaar boo ils vont dire la même chose parce que man dépassé naa fu may waxee lu dul lu dul dëgg. mii le cas de Bilal Ndiaye Bilal qu'on appelle Ibra Ndiaye donc même moom bu contrat am dire ça, mais ce sont deux gens deux xam deux nit ñaar nit ñoo xam ni esprit baaxul. donc euh, du esprit boo xam ne war na garder pour continuer ak nous, pour continuer collaboration donc je pense que loolu la. président bi nag. mooy li gars yi di wax dafa am loo xamante ni góor gu nekk góor nga moo woo nit ñi ci bureau wax ak ñoom ne leen carrément jox naa leen délai xam nga may leen ma ba fin du mois bi bu fin mois bi jógee naa leen jox seen xaalis gars yëpp bu woote waat réunion ne garaawul comme moo ko ñaan. président bu dee kon man dégg naa la bu baax maanaam euh, joueurs yi nga xam ne ñoom jóg nañu wax mbirum arriéré de salaire wax mbirum prime en réalité leneen euh, moo peut-être nekk problème bi seen diggante ak club bi maanaam mbirum contrat est-ce jàpp ne kon yooyu le joueurs dañoo nekk di laaj loo xam ne yeyoo ñu ko bu dee dégg naa la. waaw bien sûr ñuy laaj loo xam ne parce que balaa ngay laaj prime nga am am indice nga nga performant football match yi bëri wala ku footballu match pour gagner te ñun chaque mois la fay prime de match yi ça veut dire que match yi le mois c'est quatre journées yu ñu war football quatre journées yi dinañ ci fekk dinañ fekk ci dinañ football à domicile comme dinañ football à l'extérieur maintenant les matchs yi football à l'extérieur bu amé victoire donc prime am nga prime bu amé nul à l'extérieur am nga prime donc buñu gagner aussi si si si si à domicile am nga prime mais prime yi bokku ñu montant bi donc quand on fait football na on match mënoo réclamer prime donc la prime c'est par mois chaque mois on jël sa salaire calculer yow nombre de match on nga am prime. prime a une prime on a ko salaire bi fay la donc, on est que c'est automatique. C'est pas automatique. Parce que tu es un football, tu es un football, tu es un football. Donc, on a une fiche, on a pris le match, on a pris match, on a joué, on a victoire ou nul, on a calculé, ni parfois 15 000, ni parfois 20 000, ni parfois 25 000, on a ajouté quoi sa salaire, faillé le Donc, si ma salaire est 7 millions, 4 millions, 5 millions, tu as beaucoup de club, je le dis, je défie quiconque. Pour le Sénégal, le club, tu as payé salaire, de 5 millions. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas soxlawuñu maanaam pour daw si kaw pour mu jëlaat ñu équipe bi parce que ñëpp am nañ ay club te aussi tamit daw ñu ko pour ñëw di ko fubalaatal affaire yooyu. mais ba léegi jour GF GF waaw man exemple man xëy na peut-être man concert man Bamba un an laa signé woon quoi kon man donc jeexal naa. tout récemment man résil naa sama euh, sama euh, renouvelé contrat beneen équipe mun naa sax wax tur bi ndax aw ma lu may jour doon la actuellement quoi mais tey dafa am loo xamante ne nii tey suñ ko bàyyee mu sedd rek. ak ñi nga xamante ni wuri ñëwaat suñu ginaa pour ëlëk ñooñu tay il faut tamit ñun ñi nga xamantene ño dund li ni ñu jëma def li nga xamantene tay ñi ñun ñun dund ñeneen ñi bu ñëw duñ ko dund ko dañ ngeen li euh, capitaine Guédiawaye football club bi wax mom Bamba ñëw na un peu ci fee ni mu démé wax na ni amal nañ leen lu bon bon ak 4 mois yo xamné Euh, fay ñu leen ko amel leen itam ay prime euh, loolu bamu amé waxna démarche bi nga xamné ñom am nañ ko dem séti président bi mu daal di leen défal ay promesse donc euh ginnaw promesse yoy ba légui ñu ngi né ba légui situation bi euh, avancé wul demul dikul mu mu am aussi lu am solo lo xamné ne wax ko maanaam 30 jours yo xamné ñu ngi actuellement dans cette situation. contrat rek fi lañ ko fekk contrat bu jeex aussi fi lañ ko fekk waru indi ay jafé jafé wala indi problème yo xamné ne di wax lo xamné amul wala di inventé décret football Sénégal am na tribunal donc je pense que kuñ ci woo tamit on a les preuves sont là mën nañu indi preuve yi teg ko sur la table wala leen ni ñun amaluñu nit xaalis amalu nit prime c'est un problème de contrat ay nit donc li nga xam ne as ñëw desal lañ ko ay nit ak yooyu mais ça ce sont des détails yoo xam pour man jaru wax. boo nee trois mois xam nga Sénégal dañuy bëgg ji bu nekkee un ñu ne dix wala vingt parce que c'est pas la première fois. parce que je pense que amoon naa cas bu mel nii la dernière ak euh, euh, benn coach suñu coach bi ci Sénégal.

peut nag am na lu ma doon wan peut-être pour man ma mën fa yokk sama contrat pour continuer saison bi. kon yow actuellement sa contrat jeex man sama contrat moom jeex na. parce que 6 mois laa bëgg parce que dem na benn instant boo xamante ni tey jii nii dañuy ñëw entraînement imagine toi nga yeewu 6 heures du matin. di dem entraînement des fois jours yi barki alxuraanu karim duñu ma bàyyi ma fenn. dañuy jël maay jël 500 jox kenn wala kenn may ma 100 booy may ma 100 francs pour ma paas ñibbi ñuy def sacrifice yu ne

groupe bi ñu maintenir on pouvait pas continuer ak nous te fay ñu ren ak le staff ak ñi nga staff am maintenir lañ mais nous, il ne reste que peut-être ay cinq jours six jours yoo xam on va les payer mais loolu du ay quatre mois wala deux mois c'est juste un mois de salaire et que Bamba n'en fait pas partie parce que les décharges sont là fay nañ ko Ibrahima Ndiaye n'en fait pas partie donc gisuma kenn ko am tey ji bu y a pas un ou deux jours yoo xam ne war nañ leen fay. ginnaaw ba nga présenté woo wax ñu exactement euh, lan nga nekk ci club bi. waaw euh, man maa ngi de mhm. micro deux ans suis un gardien de but je capitaine de l'équipe..! bi di équipe bi. Mhm. Euh, ma gardien de entraîneur en même temps. Dans moo situation boobu nga gardien en même temps de entraîner équipe euh, parce que euh, dañu démarrer saison mhm. entraîneur bon jël effectif am ñu jël seen effectif ba ñu dem hivernal. donc man woowuñu ma ñu dem hivernal trois jours après président Thialis moo ma woo. Ousseyn Ndiaye c'est c'est un gardien qui était là ak ñun. donc saison bi jeex ñu jël ko comme préparateur de gardien. donc un préparateur de gardien, pour ñun c'est staff nekkatul jour parce que amul benn match bu mu mais c'est le préparateur des gardiens. Mm-hmm. parce que ñun dañu jàpp ni am na joueurs yoo xam ne tey par rapport à une crise de ce championnat bi tey mérité neen ñu changer statut parce que pare football rek dem courage bras pour on va le reconvertir en quelque chose donc je c'est un gardien mu pare ñu reconvertir en gardien en préparateur de gardien mais c'est quelqu'un qui a ne dañuy que c'est un mauvais esprit parce que tey staff la est bon staff bu mu bokk war à la hauteur par rapport à ak joueurs donc si mom bu demee ba liggéey ba and ak joueurs di def démarche c'est parce que mo la won l'esprit bu mu am kon ba léegi ak suñu leeral bi nga xam ne ñu ngi koy leeral ak le président pap Thialis Faye ñu fàttali ni moom mooy euh, président Guédiawaye football club euh, nekk itam président Leewtoo production di ku ñu ràññee itam ci wàllum langue politique bi euh, moom ñëwaat na ci peut-être li mu jàpp ne mooy réeroo bu am entre moom ak yenn ci ay joueuram jàpp na ni du ay arrière yoo xam ne club bi en tout cas amal nañ ko yooyu les joueurs jàpp na ni itam lépp loo xam ne wàllum prime la dañ ko spécifié ci contrat ba mu leer maanaam anam yi ñu koy fayee dañ ko tëral ci contrat ba mu leer donc buma ma ba légui euh, ci euh, le président Pape Thialis donc est-ce que réellement yow da nga japp ne euh, le fait que peut-être yenn joueurs yoyu groupe joueurs yoyu dañu leen li ñu leen nara a libéré être moo indi euh, frustration yi wala wala bile doxalin yow est-ce que loolu nga jàpp parce que euh, boo jàppee ne yoraloo leen dara euh, lu dul peut-être un mois ñoom peut-être yëg nañ ne bëgg nga fas ngeen ne fas yéene nga leen libéré est-ce que du réellement tam loolu moo indi frustration bi. réellement loolu moo indi frustration parce que xam nga Sénégal loolu lañ tàmm def

def nañ si ay jéego bi ñu yëgee ni ñun ñu ngi waaj a def mouvement bi pour kereel Pape Thialis ñoom si boppam woo nañ ñu téléphone wax ak ñun ba lépp luñ bëggoon def ñu jël ko tekk si suuf

donc il y' a à peu près trois jours pour mettre fin à leur contrat Il faut négocier ak ñoom. nous dit, de performance bi de 10 matchs jëm kaw. ba contrat toujours en cours. c'est un an il faut négocier avec parce que donc on est obligé de faire ça peut pas faire autrement. waaw bu de plein droit dans le contrat en droit à ñoom parce que performance ça montre nettement que maximum ñu ci ëpp match ou deux matchs ou zéro match. Vous mhm. euh, ñu dit, problème carrément nga Bamba est-ce que vous nga Japonais, ni euh, jaay avez comme euh, coéquipier bon mhm. parce que vous nit bi nga ñu dem ba soxla la di la woo mënoo jël sa téléphone buñ la envoyé message da koy lire doo leen tontu buñ ñëwee sa bureau duñ la gis. mais est-ce que noonu la ko joueur yi xamee woon parce que dama am impression que ni peut-être contrat bi li li nekk ci biir contrat bi bu dee noonu la demee est-ce que ñoom comprendre nañ ne euh, dañoo am loo xam ne moom la ñu waroon wàccoo ak club bi bu loolu amul yéen am ngeen sañ-sañu rompre contrat bi. waaw mais mais club

c'est parce que dañu nek ci esprit football bi n'est pas professionnel Ça à dire que nous moy football derrière y a une société qui paye de l'argent mais nous nous nañ nopi té duñu wax mais dafa am lu am ci suñu ñu indi ko exactement. nga nek plus de 30 et quelques jours. ngeen formé groupe WhatsApp. di réunion des xatiando di mu xool bañkat yi xool ñi nga xam ni peut-être ñoom ñoo ko arrangé. ñoo xam ne daawuñu sax football ci équipe bi dañ toppoon ci ginnaaw cadre yi parce que cadre yaa ngi nii mu jël ci six xaw ma sept personnes. Mhm. woo leen biroom avance leen ku nekk benn weer boole ko ay jour nawetaan pour ñu commencer entraînement pour ñu xam ne géejawaay installé wu na. que ñoom nee da ngeen jël euh, peut-être ben loowu 6 7 personnes boole ko ay joueurs nawetaan dal di former sen équipe pour bo xamné euh, saison bi commencé na ngeen mëna continuer lan ngay wax ci lolu waaw am ça montre liñ wax noonu ça montre que ni presque bàyyi bu lañ bàyyi mo mo mo indi problème bi parce que je pense que quelqu'un ku ñu bàyyi waroon sa di juger ku ñu dugal ku ñu dugal ku ñu indi nawetaan ak yoy moi je pense que parce que ñoom ñu si bëri nawetaan lañ joggé parce que tey footballu Sénégal gërëñee bi c'est le nawetaan ñoom ñëpp ñu fi joggé ñi fa Sénégal ñu ci bëri naw ñëpp ñawata lañ jël la niveau nga fay football donc tay buñu ñu ça prouve ça montre nettement que ni peut-être nga xamné club mo lañ tax peut-être lot de joueurs nous jël fay leen un mois hivernal amul club Sénégal hivernal bo xamné base saison dernière nous avons maintenu, maintenir que nous si mais niveau war nous avons championnat si équipe quelques transferts club donc on fait la même c'est la même pratique au niveau de Football Club mais jour bi ñawatan la non. On a fait des jours qui sont qui sont sortis du du mouvement du du du, du mouvement a un jour yi ont ci un club qui ñu transférer Et ak jour yi nga xamné ño nek ñu maintenir tout simplement. Donc ça forme un groupe et que dañuy dem hivernal inchallah le 1er novembre. Au sortir de l'hivernal, on va maintenant garder un groupe c'est pour le championnat et que leur ñi amul chance aussi on les on va les libérer. Mais bu dé groupe la nga jël ñi bayyi ñi no def ciow da fay am. am nañ ay njiit nag mais njiit yi taxawuñu place bi ñu war a taxawee muy entraîneur yi nekkoon ci équipe bi te ñun ak ñoom ñoo yem même situation. nit ki nag boo amee contrat ni sa contrat nga ko war liir xam lañ moo la engagé ak lu engagé waa ji pour que bu ëllëgee nga mën a xam lañ nga lan lan ngay def. tey jii nga yëkkati sept jours ou bien cinq jours nga yëkkati jox leen benn benn mois ne leen kaa leen commencé c'est parce que xam nga ni y'a problème.

comme ni ñu ko waxee rek euh, si biir wax léegi léegi wax naa ko quoi nee na ku am kuddu rek doo la ko quoi te tey ji maanaam ñun mënuñu ñu dema moom si épreuve de force comprendre nga li ñu mën rek mooy tey jël suñu kàddu xam nga jox ñi nga xamante ni tey mën nañu jëlal suñu cri de cœur bi wasaaral ñu ko ba ñëpp xam ne doomu góor ñi jullit ñii am nañ lii moo leen naqari. kon leen dem ci yoon. si bëgg nañ dem si yoon. bëgg nañ dem si yoon parce que am na fu ñu jot a dem. ñoom ba ñu ko yóbbu ci yoon parce que bu yoon waxee ni ñoom ñoo am dëgg aussi luñ ma ma luñ ma ma teg ma tegoo ko ñoom aussi bu yoon waxee ma am dëgg lu leen teg tegoo ko. mais loolu lañ dul def dañuy jël benn photocopie benn photocopie contrat bi téye ko jëlal beneen bi ñaar yëpp ñu téye ko de ce fait que yow buñ la demee ba tànc comme situation yi mel nii. yéen yoru leen seen contrat. yoruñ suñu yoru yoruñ suñu contrat. comprendre kon donc ñun mënuñu mënuñu dem ak moom si épreuve de force quoi mais kaddu rek lañ am. àdduna moom moo la fi am ay problème ak ay nit mais fexeel booy ama problème nit da nga am yoo xam ne c'est sur écrit la et moi j'ai tout sur écrit te ñoom aujourd'hui peut-être amuñu luñ teg ak ay wax la wax. kon ñu koy bu baax euh, mom le président Pape Thialis Faye di président Guédiawaye FC euh, ginaaw bi nga xam ñom euh, ñoom ñenn en tout cas ci joueurs yi ñewon nañu suñuy média fofu ci Dakar Actu daal di ñu di seen problème doon wax ni amel nañ leen ñom ci liñu japp 4 wala 3 mois d'arriérés de salaire ak ay primes yo xamné euh, club bi fayu len ko euh, mom euh, président Pape Thialis itam dégg ngeen léral yim ci indi mom tam japp na ni club bi budé dee amal na xaalis yooyu les joueurs 1 mois dong lay tollol lis dess nak contrat bi la contrat bi nak moy wax ci yane anam dañuy fayé primes yi contrat bi moy wax ci yane anam itam lañuy daldi déterminer yoyu les primes nga xamné ci nombre de matchs yi lañ koy dégager ak yoyu wax na itam ci benn groupe bo xamné dañ leen wara a ci équipe bi est-ce que du loolu moo indi coow bi moom frustration la donte sax joueurs yi ñoom seen euh, wàllu bopp dañoo jàpp ni ñom ñoo amé li di deug comme nu ko danelé rek xamna ñun tam fofu lañuy danelé yakarna ni mbir mi euh, budé médiation itam mënu ko euh, safaral ñu yakarni rek warna mëna nek a lépp rek warna mëna yone itam warna mëna léré itam ci yoon ndaxte koo xam ne da nga signé contrat je pense que tam amna ay devoir way itam amna ay obligation yo xamné mo moo pesé si sa ndodd Euh, kon nag mu nekkoon euh, li ñu leen indiloon euh, ci wàllum Guédiawaye football club ak coow loolu ñu jàppoon ni moo jiboon ci diggante ñenn ci joueurs yi ak kii di la président Pape Thialis Faye dégg ngeen parti ku si ne li nga indi ci ay leeral ñu bàyyi leen yéen rek nga xam ne yéen ñii yéenay aswan wi ngeen daal di xool fan la dëgg féete ñu leen di jaajëfal bu baax di leen remercier ci teewlu bi